bismillahi arrahmani arrahim بشر الله تبارك وتعالى سوار ناتم هذه القصيدة وخيرهم من المؤمنين والمؤمنات معا في شهر رمضان عام الشاشن السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi topp seen site Dakar Live TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen bu baax te di leen ñaanal koor jàmm dellu siwaat nañu ci nu ko baaxoo defe ak yéen ci di leen indil seen naafilay weer koor ngeen koy ànd ak Oustaz Moustapha mbokk yi guddik ñaar fukkeel ci weer koor ku julli juróom-ñetti raka raka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon teg ca inna anzalnaahu fii laylatul qadr basaar wa jeex benn yoon teg ca lixlaas muy qul huwallahu ahad basaar wa jeex ñetti yoon ku def naafila gi des na ko bindal tiyaaba ju toll ne limu mbooleem lu nit mas def ci lu baax allahu akbar te dees na ko jéggal mbooleem bàkkaaram yépp yu njëkk ak yu mujj te dees na ko musal ci lëndëmuk bàmmeel yonent bi sallallahu taala alayhi wa lay àndal dugg aljana kon mbokk yi julli gi ci liy feeñal ngëneeli weeru koor ñuy ñaan sun borom subhaanahu wa nangul leen te nangul ñu wasalaamu aleykum wa rahmatullah ma assalaam bismillahi arrahmani arrahim بشر الله تبارك وتعالى سوار ناتم هذه وخيرهم من المؤمنين والمؤمنات معا في شهر رمضان عام الشاشن